state ball ñun dañuy ñëw approach ñu ne it's a national event event boo xam ne rek maliki ki ñun dañ war contribute waaw ñu jox ñu four hundred or six hundred dollars um, mu nekk lifin waaye suñ ooyee ñoom bembeyaa jox leen five six thousand in those days I'm got that gap is uh, very, big. very big. So that is happening still. This is the same thing we happen still. Mom, like, so Lolo changed it. Lolo changed no. from the 60s right down now. to 2013. No, no, no. Finally, <laughs> galant dinners yi nga dégga yëpp. Mm-hmm. oo gala night yi nga dégga yëpp. Mm-hmm. Um, the foreign artists. moom mm-hmm. la ñoo jox di lump sum. local artists yi ñii ay three ay five ñooñu even there you for the bala nga am ci they bi dañoo dañoo jàppante bi sonn. waaw waaw électé électé gala man I don't perform live now. Why? The money déggal seen complaint. par exemple li ma see boo um, teg. muy uh, jeune si man pour man muy mm-hmm. jeune. is like an ambassador. dañu war a seet ñoo duggee si biir nit am solo Because parce que ambassador. Mm-hmm. or ambassador bu yuutal. ñoom bu ñu dem office yi dañu war a comporte suñu boppam. xam nga man du ma si gën sa boppam amul musicien. Mm-hmm. comporte suñu boppa ni ñoo behave ni ñoo solo ni ñoo duggee si biir mm-hmm. ah, mm-hmm. bi parce que. moo dem léegi si dëkk moo ko mën a génnee. waaye bu ñu xoolee yaa ngi solo comme ragal ma fi ne ah. waaw duñ la respect ah, waaw dafa afa am na nuñ la dee gisee rek dañoo fiil na yow looy def amul njëriñ. waaw loolu fa laa bëggoon ñu daanelee. bu ñu nekkee benn pro. Mm. dafa xamul. Mm. so naka naka la ñoo bilee daat man naka la ñoo bilee bridges yooyu noonu comme Tiju for instance mentionnoon na ne ñoom bi ñoo ñëw ees si music scene bi si 90 si ñoom ñu ngi fiil ne balaa ñoom dara amutoon. am na ci ma ko mooy ne ma daa dara. waaw xam nga xam nga ne ah musique musique yi Gambien amutoon xam nga si ñoom daal mm. yëf yi fii la dooree ñun ñoo ko door because then again bi xëj na. I'm not trying to blame the media but hamga nga sort na soot mak bu ñoo mag lan lañ daan dégga Bob Marley ngaa dégga si radio yi wala Youssou Ndour wala Baaba Maal xam nga wala. waaw xaaral ma ñëw fii nii. baal ma ñëw fii nii. Mm-hmm. am na point boo fi raise. waaw ñun dañ war register. Mm-hmm. with these institutions. as an artist. Mm-hmm. am suñ ID. yaa ma because comme yow yaa ngi a veteran musician you know nga gis benn xale boo xam ne na mu ngi 17 16 you know mu ñëw pour jàng te xam ne si 60 si yéen you guys were like the be all and xam nga yéen a yéen a woon yëpp. xam nga Keba. waaw suma ji. Mm-hmm. he was privileged. Mm-hmm. at the age of five. Mm-hmm laa ko jox guitar moom liggéeyul boppam guitar de. Hmm. waaw waaw no, <laughs> moom moom de waaw explain na story. and uh, I love tukki woon. yes nga ñëw indil ko guitar. guitar that's right yes. ma jox ko and from hmm. there he you know develop at a certain point. mu hmm. jàll géej gi dem Sénégal. ma ne ko soo demee. seetal Cheikh Tidiane ne ko man maa la ci moom. Mhm. you know Cheikh Tidiane is a legend. Mhm. you know in guitar playing. Mhm. Uh, seetal Habib fay why, why fogolone tamit ne. Uh, maybe maybe I'm being delusional Why, yo, ya defar sa own guitar den ba nga am sa bos. right Why jëndal nga keebaa guitar. right wolé mention na né yaaya a jox first guitar. was it the first or second perfect léegi tiju yow xamna né sa doom su bëggee def music would you ding la da nga leen a aaye wala da nga leen a encourage ci yëf yi man suma doom suy def music dama ko encourage mhm. te because xam naa ne like uh, because music bi right now complexe mhm. lu ma la wax mhm. mooy ñun suñu music xalaat si music passé na ne Gambia moo tax ñuy def music understand why I fair. Ah, foog because right now nekk na time boo xam ne mag mm-hmm. Mm-hmm. am nañ responsibilities mm-hmm. am nañ yu ñu war def so ni in time boo xam ne pour ne dañoo def music because of ne Gambia nit yi ñu understand why it's fair dañoo def music pour mu indil ñu leneen so man suma doom su waree ñëw dugga si music right now xam naa exactly fan laa koo teg ak naka la nga xam ne man fu ma jaar sax man maybe at yu ma am si musique moom bala moo am at yooyu sax moom tekki na si musique ndax musique man dama ko dee wax always mais ne musique lu tax man ma koo def mooy ex ma am si aleel wax dëgg understand my style bu bëree bëree bëree bëree bëree bëri wax dëgg understand my style loolu moo tax ma koo def mm-hmm. so su ma su ma nekkee ne su ma doom mu koo def tamit mm-hmm. damaa fi ne moom tam loolu mooy nekk imam so te damaa try ne moom imam boobu noonu bala mm. moo am at yu mu am si man si musique mm. moom mu achieve loolu understand so te da gis ne am comme nu ñoo way ex mm. xam nga lu mooy lu ma la woon ëllëg bi is very important dañu war a xalaat ëllëg understand te ëllëg musique bi ëllëgi musique bi nekk musicien yi rek musicien yi rek mënuñoo toog ñu xalaat ko te amuñ support understand my experience duñ dee wax support support support bi ko musique xaalis la understand na it's not music nekkul lu yomba yaa ngi feel right now soo waree def a project uh, for example nga war a record dangaa gis booy yu bari dañ dee génnee sound soo gisee ñu koo génnee bu xam booy xam nañ luñ bëgg a de mm-hmm. waaye expense bi mm-hmm. dafa mel ni bu ñu doon toog fii ñu ngi doon waxtaan si mm-hmm. dooreen bi yow da gis koo xam ne nga dem benn dëkk nga am sa paaxu boo xam ne moo bi clipam bi mu ngi si spend léegi two hundred thousand clip bi yow soo ñëwee Gambia mun loo doo doo soo soo munee am xaalis sax ne mun naa spend two hundred thousand si suma clip bi du ma ko def waaw ma ko def because lu tax du ko def soo laajee wóolee mm-hmm. na la wax tuuti ci affaire yi uh, record production you know mm-hmm. eh, naka la day mel ak yow daf day bëri am xaalis am xaalis pour bi la rek xam mm. some people say ki may wële xam nga dafay wële someone big xam nga the name is big waaw name is big <laughs> yeah because if I compare myself to Ousseyn Ndoye in Sénégal mm. mm. bro li moo jàmbale jàmba am nga wële lu ma experience waaw lu ma waaw wële waaye li yeah yeah is a different comme for example right now wële man mun naa yow xam nga ne record music live recording moo gën a am quality mu gën a am doole. Mm. mu am gën everything. lu mu ci live recording. live recording mooy comme. with instrumentals band bi yëpp ngeen record. Mm. music bi. dafa utee comme like nga dem. si si mm. nit ki mu ngi amee synthesizer rek mu defal la bit. nga dem nga record si. understand nga waaye artistes yu bëri xam nañ ne live record bi sax moo leen uppal profit. waaw waaye amuñ njëgam waaye amuñ njëgam. because soo waree am band. baan rek pour nga am baan xam nga dañ yow a booy dañ war a am baan kirit karab yow baan pour maintain ko xam nga ñaata la every nga ñaata nga war a fay gars yi transportation everything wala san waxaguñ courant so music is about xaalis te digga reality mooy musiciens yi tam man fu ma dee blâmer musiciens yi ex mooy mu mm-hmm. fi ne musiciens yi dañ dee fake public because damay du ma la dee wax ndóo yi da nga day ndóo yu bëri every day ñu ngi laa play si télé bi ñu ngi laa play si radio bi clip yaa ngi. waaw yooyu play baax la dee nekk. waaw ba pare yow soo ñëwee man suma kër sax. Mm-hmm. yow man maa la war a jigi cigarette sax maa la ko war a jox on a <laughs> <laughs> is that the fake it till you make it phenomenon. waaye Gambia dafa dem ba industrie bi amul régulation. Mm, artistes yi. tamit ñu try pour give people xam nga. ak doon dafa important togetherness bi. xam nga bi dafa am football dafa am FIFA. da nga bokk ak FIFA. ba nga dem ko. Gambia FIFA <laughs> uh, that's where our problem is. Um, to work hand in hand with the national arts. Mm-hmm of, arts, and arts and culture su copyright sa dañ ko dee wax copyright copyright copyright copyright su ñëwee am na yu bëri du ñu woyaat Gambia fii right now soo fi jógee ñu ne CD Super Eagles nga bugga mm. da ngaa wër ba dox nga wër <laughs> so ñun lu ñu am sax dañ ko bàyyi yëpp mu dem Some interesting pieces right there from Bridging the Gap. It was an amazing discussion done by X Miles, and there is so much you can learn from these amazing people. Uncle Selami from the old school, Uncle Wale who was in between the old school and the new school, just bringing that connection. And he helped produce a lot of the new school talents. And of course, Tiju Bray, who represents our generation, who knows and has been there and done that. So he has so much that he can tell, and there's so much you can learn from these three people. So it was a very, very interesting discussion, and I hope you enjoyed it. Right now, we'll go with some new school videos. Let's come back to our time, reminiscing time over. Let's come into the current days. And we're gonna go with our first brand new video. This is brand new from an up-and-coming artist called Davis, and he's from The Block Entertainment. An amazing video right here, great video. Enjoy this one, Gambia. It's called Depression.